que les mesures de confinement euh, sont moins pour eux-mêmes que pour leurs parents. Parce qu'ils vont choper le virus euh, en étant dehors. Et quand ils rentrent à la maison, ils l'amènent, ils infectent euh, les parents, les adultes. Eux-mêmes peuvent être asymptomatiques. Ils peuvent le porter, ils peuvent l'avoir et, s'en passer sans savoir. Mais entre-temps, ils auront déjà contaminé euh, les, adultes. Donc euh, c'est une maladie assez complexe euh, qui requiert beaucoup de discipline, qui requiert beaucoup de sensibilisation et à chaque fois que nous apportons les masques, nous en profitons pour échanger avec les autorités locales, pour échanger avec le médecin du district pour sensibiliser. Mais la sensibilisation, c'est vraiment surtout pour les jeunes. Et les dons est estimé à combien de masques Donc aujourd'hui, nous avons fait 5000 masques. Euh, et euh, nous sommes prêts à collaborer avec le médecin euh, chef de district, avec le, maire, pour, s'il y a lieu, augmenter la, la, dotation. Mais nous continuons ces, mesures d'accompagnement pour toutes les communes, Le choix de pour ce don mon euh, c'est euh, euh, dans, le, dans, le, département de, Dakar, si je ne vie, c'est la première ou la deuxième commune. Un hein. département, c'est une commune qui, fait près de 300 000 habitants. Et nous savons aussi que le, virus commence à prendre des proportions inquiétantes. Et, donc, si on arrive à le contenir à, à, si on arrive à le contenir euh, euh, à Dieuppeul-Derklé à côté, euh, on aura gagné un point de la, du combat. wolof ah ok euh, ci wolof rek euh, tey nga ñëwoon fii ci Grand Yoff ndax mën nañoo xam lan moo la indi fii. waaw dañu seetlu ne dañu président de la République dafa jël mesure de déconfinement maanaam ñu commencé économie ñu commencé ko tijji dem beeg dikk bi ñu tijji ko. te xam nañ ne virus bi euh, du déplacé wul boppam nit ñi ñoo koy déplacé et euh, puisque nit ñi commencé nañ déplacé wu dañuy njort que ne euh, virus bi dina gën a law li li ko mën a baare li ko mën a téye rek mooy ñuy sol suñu masque mais boo balaa ngay sol masque day fekk nga am ko moo tax port de Dakar jël ay matuwaayam jënd ay masque Nous euh, jox les communes euh, ñu ci communes yi nga Grand commune population ci département de Dakar donc dañu choisir euh, commune de Grand mais duñ ko yemale fii rek inshallah dinañ dugg ci commune yëpp ku nekk euh, ñu yóbbu fa ay masque euh, pour sensibiliser aussi nit ñi surtout xale yi euh, parce que xale yi gën nañ ci mbedd mi daal nañu ay tiis def nañu ay quelques bouquins pour pour ñu déconfiner ñu gën mais il faut ñu xam ne que xale yi ñoo ëpp ci ñi nga xam ne ñooy jël virus bi. mais li ci euh, doy waar mooy que ñoom dañ koy jël mais virus bi du leen sonal xale mën na ko jël ba mu génn ci moom te te du ko daaneel par contre mën na ko euh, wàll euh, papam wala yaayam wala magam wala rakam te bu ko wàllee papa wala yaay mën na fa jógee wàcc liggéey li ñuy bañ li ñuy bëgg nag mooy sensibiliser xale yooyu Euh, que ne bien que ñoom mën nañ ko jël te du leen sonal il faut ñu xam ne que mën nañ ko wàllaate euh, te euh, pour ñu bañ ko wàllaate li ci ëpp solo mooy ñu sol masque. ndax mënuñu xam ñaata masque nga tey nag 5000 masques la ñu indi préfet dolli ci 2000 masques muy 7000 masques yi ñu indi ñu di wax rek médecin district ak maire. incha allah bu fekkee ne soxla nañ ko rek ñu ñu ñu dolliwaat rek yaakaar nañ ne nag xëy na dolliwaat ci am parce que bu ñëpp commencé euh, sol masque yi ñu am ñeneen contribution xëy na ñu yegg foofu mais port de Dakar pare na pour euh, yokk incha bu fekkee ne soxla nañ